Daouda Diouf nek candidat mouvement and soqali suñu gox bu tuubaatul li ñuy wax exode rural ndaw ñi ñep jog daw aw Dakar te buñu démé aussi di am ay difficulté benen bi euh, difficulté yoy yep yep yep, bu ñëwé yok ci li nga xamantene walu walu souf mi nga xamné problème la ci Sénégal waye particulièrement dafa gëna nek problème fi nga xamantene moy mooy tubaatul ndax ñu ngi caqat diko dag diko joxe ci anam bo xam population bi yeguñu gëntuñu ndax exemple biñ ci mëna joxe rek mooy boo gënee tubaatul jëm xombol c'est plus de 6,5 km, danaka 7 km, té bo xolé loolu lépp dagg nañ ko ñu ngi interpeller le sous-préfet mi nga xam l'autorité administrative mu def ci loolu ab l'enquête bo xamante dina mëna édifier l'opinion publique ñëw ñu xam population bi xam sous-sous, naka lañ ko dagué ñan lañ ko jox mon nañ ci citer aussi exemple ndukumaan nga xamne fofu foofu yëpp dagg nañ ko jox ko ay nit ñoo xamne ay boroomi xaliss lañ te population bi amuñu dara lo xamne ay retombe lañ ñoo xamne muy jeunesse bi muy ñeneen ñi am nañ ko ci. benen bi ci top moy walu état civil ndax tay commune buy dox état civil bi dafa wara dox te gis nañ état civil Touba Toul wax deug ci yàlla mu nek problème ndax dèjà da ngay dem sax pour wara xol sa extrait nga dem. yenn saa yi nga fekk numéro bi dagg mënuñu déployer toute une administration yóbbu ko ci benn boutique boo xam ne borom day liggéey ñu yóbbu ko ca képp ku bëgg a ut résidence ñu ne la demal foofu ñu signé la képp ku bëgg a ut euh, extrait ñu ne la aussi yóbbu ko foofu donc di wax ne rek jafe-jafe yooyu yëpp ak manquement yooyu yëpp tax na tubaatul tey bi ñuy nat communes yi yan commune ñoo ci gën a performante maanaam yan commune ñoo ci gën a jàmbaare ci liggéey bi nga xamante ne ñu ngi koy liggéey Touba ci juróomi juróomi téeméer ak fanweer ak juróom-ñaari commune Touba mu ngi jël rang wu maanaam euh, ñeenti téeméer ak fukk ak ñett kon loolu ñu gis ne vraiment rang bu bon la ci biir Touba ak potentialité yi mu am ak Touba li nga xamante ne moom la am lépp lépp lépp lépp lépp vraiment bu fekkee ne am na rang boobu war nañu toogaat xoolaat suñu bopp waaye itam war nañu xoo toogaat xool ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy jiite. di wax na rek population yi. Euh, dañ leen a dañ leen a dañ leen a fulaalul dañ leen a fulaalul euh, te ki ci jiitu mooy ki nga xamante ne mooy maire bi fi nekk nga xam ne nekk na fi presque vingt ans euh, nekk fi te wax dëgg si yàlla amul benn volonté politique maanaam gisuñu daal dara lu mu def loo xamante ne ay effort la yuy wane ne kii kat mën na jàpp bëgg na jàppale li nga xamante ne mooy population di wax ne aussi Touba ñi nga xam ne ñooy population Touba jot na nag ñu xam ne

Euh, population yi war nañ ko xam ndax tey bu fekkee dañuy tànn ki leen war a jiite ki war a jiite seen commune waaye ñi nga xamante ne aussi ñoo war a nekk ay conseillers ñu délégué leen ñu war a ci dëkk yooyu population bi war nañu xool bu baax a baax a baax kon kan lañu war a tànn wax ne jot na population Touba Toul jël maire bi jox ko benn équipe duñu ko jox sax benn nit muy def lu ko neex di euh, defal ñi ko neex nañu ko jox ben équipe bo xamné comme équipe bu mouvement and soxali suñ gox nek équipe bu jeune bu dynamique bo xamné tay mën nga ci gëné compétence yépp waaye itam ñu bokk ko ak ñeneen ñi nga xamné suñu ay frère lañu suñu ay collaborateur nekk ci biir commune Toul ñun ñëpp ñu liggéey ensemble jeunesse bi tay bolo bolé seeni doole ak seeni xam-xam seeni am-am ak seeni mën-mën ak seeni relation pour mëna a Touba Toul fi nga xamantene moy ci kanam donc di wax ne mouvement an soxali suñ gox nak lolu du ci dess gannaaw danañ ci dem te itam euh, mouvement bobu li nga xamante ni mo ko sos euh, moy ay nit ño xamante ne waxtaan euh a waxtaan biñu ñu dal di gis na tay suñu commune war nañ ko taxaw ñu ne nag kon nañ leen tok autour d'une table xol nak lañ koy taxaw donc lolu biñu ko defee ñu ne nañ leen créer mouvement buñu wax mouvement and soxali suñu gox ànd soqali suñu gox nak nekkul rek lo xamante ni ab slogan la waye dafa nek lo xamne dafa bëgg a ñëw pour dindi population Touba Toul ci jafé jafé yi nga xamante ci lañ nek ba tax na depuis bañu ko créer muy avril 2019 mu def ñaari at ak euh nopi wuñu di dem ci population yi di waxtaan ak ñom euh di xol seeni jafé jafé di xolit li nga xamante mo moo ci dëkk yu ci nek ndax population yi il faut nga jegeñ leen pour mën a xam dëgg dëgg dëgg lan lañuy dund loolu permettre ñu ñu def li ñuy wax un diagnostic participatif communautaire manam dekk bu ci nekk ñu jema xol la nga xamante ni mo fa manki ñu boole ko muy euh manam jafé jafé global yi commune Touba Toul ba tax na ñu teg ci li nga xamante moy programme té programme bobu aussi euh mu am ben vision bo xamante mandat bi ñu jëm bu féké ne jox nañ ñu ko ñu fexé ba Touba Toul nekk commune bo xamante ne fu waay nekk di nga bëgg ñew ñëw Touba Toul waaye mu nekk it commune boo xamante ne dana am ay infrastructure socio-économique maanaam mun am ay ay écoles yu doy ay postes de santé yu doy am ay cadres de santé yu doy waaye itam mu nekk commune boo xamante ne ni ñu ko gérer baax na gouvernance bi nekk gouvernance boo xamante ne day leer ci askan bi yépp waaye itam ñu nekkal fi askan bi yépp loolu aussi bi mu amee mooy wàllu économie waaye ci li nga xamante ne aussi mooy wàllu sociale bi waaye itam ci li nga xam ne mooy wàllu gouvernance bi donc di wax ne rek mouvement ànd soqali suñu gox boobu euh, ginnaaw bi ñu defee diagnostiku jafe-jafe Touba Toul yooyu euh, dañoo am programme boo xam ne programme bu bu bu ama am solo la ci biir Touba boo tax na élection yi jëm ñu fas yéene cee taxaw taxawaay bu am solo di wax ne ñi nga xam ne ñu ngi ko doon laam-laamee est que mouvement bi dina dem est-ce que am nañu ay moyens est-ce que est-ce que mouvement ànd soqali suñu gox day dem ci élection yi nga xamante ne ci lañ jëm ñu ciy tànnee. Euh, ñi nga xam jite ñoo wara jité gox yi ak gox bu xani soit ñu dem and ak suñu ay nawle wala bogit ñu dem man suñu bop waye lu ci mëna am mouvement and soxali suñu gox dina ci am bu am solo ci biir élection yi nga xam ne ci lañ jëm di wax ne aussi euh, jot na nak ndax amna ay défi yi ñuy xaar suñu kanam kon su tubatul ñu ngi leen di wo yeen ñëpp ñu bolo parce que li fi nek nak bolo rek moy tax ñu jël ko fi tubatul soxla nako kon ñu ngi lancer un appel à la jeunesse de Touba Toul yéen ñëpp ngeen ñëw ñu waxtaan jéem a ànd jéem a booloo fexe ba commune Touba Toul nekk commune boo xam ne nii euh, ñi koy yor léegi dina nekk ay nit ñoo xam ne am nañu compétence bi waaye am nañu capacité bi waaye aussi am nañu yërmande ci li nga xamante ne mooy seen population. donc di wax ne rek du ma jeexal samay kaddu sans ma remercier ñi nga xamante ne ñoom la ñu àndal depuis deux ans et demi bien avant même. ñu nekk ay nit ñoo xamante ne ñu ngi ci biir mu mouvement ànd soxali suñu gox muy ñii toog nga xam ne di boole seeni doole lu ñu am ak lu ñu amul di suñu am-am bu ndaw ñu koy jël di ko yóbbu ci population yi di waxtaan ak ñoom di xool seeni jafe-jafe waaye itam di leen sant parce que ñu nekk équipe boo xamante ne équipe bu suude lañ équipe boo xamante ne équipe bu jambaare lañ équipe bu dynamique lañ koo ci yee deux heures matin ne ko kaañ dem sax mu jóg parce que askan bi rek nyor, len ñor parce que Touba tour rek mo len yitel kon ñu ngi len di sant bu baax di len gërem di wax ne aussi ñu ngi wax wa Touba tour yépp ne len am nañu ci yeen waye itam am nañu gëm-gëm ne bu mebo. bo le soir manam ngoonu 23 janvier muy ngoon gi nga xam ci lañuy joxe résultat yi ñu am euh, victoire bo xamantene dina nek victoire bu lèr ñun ñëpp ñu joxante loxo liggéey li nga xamantene moy suñu commune muy commune Touba tour kon daal ci kaw loolu ci laa leen di sant di leen gërëm di wax asalaamaaleykum wa question boobu question bu am solo boobu euh, di wax ne euh, yaakaar naa nit fu fu mu nekk ñaar fukki at te defu fa dara loolu mënuñu ko ñàkk a mënuñu ko mënuñu ko jàppee ñàkk bëgg waaye ñàkk mën la ndax ku ne xam na ne maire bi fi nekk déjà équipe bi nga xam ne ñoo ko entouré nekk na ak ab équipe boo xamante ne amuñu njang mi te itam ab équipe la boo xam ne vraiment ay mag rek ñoo ci ëpp ñoo xamante ne amatuñu dara loo xam ne dañ koy perte ñooñu ñoo ko wër. moom mi nga xamante ne moo fi nekk ak équipe wax dëgg si yàlla euh, ni ñuy yoree commune daf ko dépassé te jamono bi ñu nekk ak àdduna bi ni muy doxee wax dëgg si yàlla de loin daf ko dépassé kon mën nañu wax ne rek loolu ñàkk mën la te wax dëgg si yàlla nag ku mënul bay woo lu yàqu yow waaw jërëjëf aussi question bob, question bu am solo la di nga ñu may sax ñu expliquer d'abord dañuy jël électrification rurale électrification rurale dafa nek point boo xam point bu am solo nga hamne président de la république depuis 2012 dafa wax ne électrification dafa nek li nga xamante ne man sama priorité ba tax gis ngeen programme yi fi nekk état bi ko mooy ay PUDC ay Azer, ak itam gën a pour que gox yi ak gox goxaan yëpp mën a am électricité te aduna bi dafa am lu ñuy wax les objectifs de développement durable ci kaw objectif yooyu nga xam ne Nations Unies ñoom ñoo ko teg dañoo wax ne aduna bi dañoo bëgg électrification universelle maanaam muy gox gi ak gox goxaan yi ci aduna yëpp am électricité balaa ñuy dem fii ak 2030 maanaam euh, fukki at ci kanam Sénégal à travers le plan Sénégal émergent dal di wax ne ñun duñu xaar sax 2030 waaye 2025 rek la ñu bëgg a am li nga xamante ne mooy électrification universelle maanaam dëkk yépp ci Sénégal gox gi ak gox-goxaan yépp am courant balaa ñuy yegg 2025. kon bu ñu tolloo foofu nga xam ne ñu ngi ci 2021 Touba Toul euh, au lieu que ñuy wax sax ay 50 pour cent taux bi dem na ay 70 pour cent tey Touba Toul bu ñu la nee taux bi jegewul sax 30 pour cent kon y a problème te structures yi ñu ngi fi. Euh, ñi nga xamante ne aussi ñoo leen di dooleel muy ay Sénélec yooyu yëpp ñu ngi fi waaye gis nañ ne maire bi fi nekk deful benn jéego euh, gis nañ ne sax en 2019 dem na ci ay dëkk yu bari yoo xamante ne dafa jël ay lu mot ay fukki potolam ak juróom tegal leen ko fa ne leen dinaa leen andil courant bu ngeen voté dinaa leen andil courant ñoo ñooñu taxaw di xaar ba nii ma wax ak yow poto yaa nga fa di maxe ba léegi andilu leen benn courant. waaw donc di wax ne dëkk yu mel ni Newraan ak dëkk yu mel nii. Euh, Ndadeen dëkk yooyu yëpp daanaka andil nañ leen ay poto andi nañ ko Kerlaman gi ndax bu ñuy wax ne Toubatoul am na courant biir Toubatoul chef lieu de la commune am ay zone yoo xamante ni ci mel ni Kerlaman ba léegi mënuñu am courant loolu wax dëgg si yàlla euh, télé maire bi nga xamante ne moo fi nekk moo ko waral. waaw couverture maladie universelle aussi nekk loo xamante ne aussi président bi daf ko daf ko bàyyi xel daf ko bàyyi xel ba tax na. Euh, def na ci ay structure décentralisée région boo dem am na benn service boo xam ne teg na ko fa rien ko pour loolu mais boo xoolee couverture bi ba léegi problème dafa da cee am ndax boo xoolee li nga xam ne nii post de santé yi moom lañ leen lépp ba léegi daanaka feyuñ leen ko mu nekk ay ay ay millions yu bëree bëree bari ba tax na léegi couverture boobu daanaka euh, doxul ni nga xamante ne noonu la war a doxee te tuubaatul gi tey bu ñu fi ñëwee daanaka doo dégg sax ñuy wax couverture maladie universelle ndax tey mën na nekk loo xamante ne population yi boo leen ko waxoon sax du xam lan la waaw ndax kenn waxu ci tey kenn defu ci tey kenn jógul def benn effort bu bu bu buy wane ne nit ñi kat wax dëgg si yàlla volonté président de la république boobu muy couverture maladie universelle euh, volonté boobu de jàpp dinañ ko ci jàppale fii ci Touba pour que population bi mën ci bénéficier wu. jërëjëf ci question boobu loolu am solo la dafa jot population bi. képp koo xamante ne ni taxaw na di laaj mairie ci Sénégal population ba dafa jot ñu laaj la lan mooy sa programme ndax itam ñëw ci askan bi rek naa leen su ngeen ma folee naa leen def li wala wala yor di ko tuur askan bi pour ñu voter la loolu moo andi problème yi fi xew te suñu ko bawul mooy andiwaat yeneen problème yi nga xamante ne mooy ñëw tey képp koo xam ne yaa ngi taxaw di laaj mairie Touba Toul population bi nañ la laaj lan mooy sa programme mu nekk un programme boo xam ne yéen yéen a koy teg waaye mu nekk un programme boo xam ne population yi aussi dinañ ci dugal seen loxo dugal ci seen xalaat mu nekk un programme participatif ci sama discours wax naa ne am nañu programme participatif boo xam ne ñun ak population bi ñoo ko tëgg programme boobu nag wax naa axe yi ñetti axe yi nga xamante ne mooy économie ak sociale ak gouvernance loolu lépp nekk ci li nga xamante ne mooy suñu programme waaye itam loolu euh, nekk programme boo xamante ne nii bind nañ ko boo teg ko ba fekk quelques jours dana disponible ci population soxla nga ko wala laaj lan programme ñu jox la ko nga ñun maîtriser aussi danoo dem ci population bi laaj leen seen xalaat ku ci jox ñu sa xalaat ñu population bi ak suñuy xalaat programme bu leer. ñu ngi aussi ñi nga ay candidats lañu ñu def noonu bu population bi duñu ñu xam kan lañu ñu war a jox liggéey pour mu jiite commune Touba Toul. di nuyu bu baax di leen ziar euh, di présenté wu Alpha Gueye Gaddaxay coordonnateur du mouvement ànd soxal suñu gox euh, tey ji dañ fi tase woon ci waxtaan ak population bi ci conférence de presse bi nga xam si ne moom la suñu candidat waroon na def euh, ñu def ko ci bisimilah rahmaani rahim yi je pense que aussi àgg na ci alhamdulilah rabbil alamin

amu yi nek Ben, benn di liggéey mbur soxali seen gox ci kaw loolu moo tax ñuy waaj lu am solo muy ay élection communale muy élection locale yi war a ñëw janvier ñu war ci am taxawaay bu am solo ci kaw loolu nag ndaw ñi nga gis ñi ñu taxaw ñu am benn vision politique war a teg benn équipe communale bu dynamique fii ci commune bi ñu bëgg nag équipe communale bobu di nek ci commune ba tay ñu bokku ci lolu mo tax tay ji ñu wara am benen taxaway ak benen xar kanam bu bees parce que commune bi dafa tardé ci côté yu bëree bëree bëree bëri danaka problème yépp wax nañ ko fi muy problème infrastructure problème route problème courant problème ndox dekk yu bëree bëree bëree bo xolé seen ndox dafa manki wala amu fa sax bu dee yoon mom jarul ñukoy wax électrification pareil donc difficulté yooyu population bi am ko fi ci commune Touba Toul ñun ñu am ci taxawaay bu am solo boo xam si ne war nañ ko ci mën a def moo waral tey jii ñu jóg xar suñu tànk tubéy taxawal askan wi di leen xeexal bu ko defee ëllëg bu ñu tegee ci boppu mairie bi compétence bi nekk ci ñun ñu bokkook population bi.